yaa xayra dayfin bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa koor buñ ko waxee mooy nit ki bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi lu ñu tuddee rapport sexuel maanaam sëy ci bëccëg bu ñu waxee rapport sexuel nag man lu may wax mooy diggante jëkkër ak jabar waxuma nag leneen arab donc tàmbalee ko bu fajar gi xare ba jant bi di so loolu moom mooy koor kon lépp loo xam ne lekk la wala naan la wala sëy loolu dafay yàq koor léegi ci wàllu li nga xamante ne la ñu tuddee mooy faj li ñu faj nit lépp loo xam ne li ñu tuddee vaccin wala ay perfusion lépp loo xam ne bu ñu la ko defalee dafay remplacer lekk wala mu remplacer naan loolu mooy yàq koor loolu mooy yàq koor masalan koo xam ne dafa feebar perfusé nañ ko mais perfusion boobu dafay remplacer naan donte donte jaarul ci gémmiñam wala dafay remplacer lekk donte jaarul ci gémmiñam loolu yàq na koor mais bu ñu amee ay piqûre vaccin wala yeneen yoo xam ne dañ koy kii di faj nit waaye nekkul pour remplacer rek wala remplacer naan loolu dara du nekk ci loolu du yàq koor wala comme vaccin yi nga xamante ne vaccin anti covid la yàqul koor yàqul koor ci dara kon loolu moom dara dara nekk ci koy xamee loolu compagnon yonent bi alayhi salaatu salaam lañ koy wax maanaam nit ki mën na ko bañ a xam a cent pour cent mais mën na rafet jot mooy koo xam ne mu ngi doon woor ci biir koor gi mu ngi góorgóorlu di def lu baax di def tiyaaba ak yooyu waaye koor gi jeex mu delluwaat ci ay caaxaan na xam ne kooram nanguwut waaye koo xam ne mu ngi doon góorlu ci biir weeru koor gi di jàng alxuraan di woor di saraxe bi weer bi weeru koor gi jeexee mu continuer ci loolu mën naa am yaakaar te ne mbiram baax na mais koo xam ne tey génn delluwaat ci loo xam ne mooy yàlla la ak yooyu ah kooku tamit mu jàpp ne kooram kon ñoom jullit ñu njëkk ñi noonu signe yooyu lañuy ñu wax ne ci la ñuy xàmmee suñu koor baax na wala wala baax yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu naafila 19 guddi fukkeel gi ak juróom-ñeent ci weeru koor sopp nañ ku ci julli juróom-benn rakkaan 6 rakkaan rakkaan bu ci nekk mu jàng faatixa benn yoon jàng xul huwallaahu ahad juróom-ñaari yoon googu julli ak fayam moo di aljanna te ku ko def yàlla dana ko musal ci lépp lu mu ragal te bu ñaanee xaajoom borom bi subhaanahu wa taala dina ko ko fajal te saytaane dina koy daw bu faw te dina deewaale ak ngëm yàlla ci mbooloo mi njëkk tàbbi aljana ci lay bokk yaa xayra day finaata bil bisri wal madadi alan wa sahlan wa tarhiban bila